alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bii leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mel ni jotaay la bopp dañ ciy fàttaliku sëriñ bi waaye di ci fàttaliku suñ jëmmi bopp ndax lii bokk na ci fàttaliku sa bopp pour ñàkk a fàtte sa bopp muy jotaay boo xamante ni ci jotaay yi ëpp solo ci àddina bi la bokk ndax jataayu zikkër lay doon te may wax jamono bu ne ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam day wax ne yàlla bind na ay malaayka yoo xam ni dañuy wër te lay seen liggéey mooy xool jataay yu mel nii saa bu ko gisee dañuy wootante ci seen biir saa bu ñu ko gisee dañuy wootante ci seen biir ne li leen taxaw jóg mi nii bu ñëwee dañ leen di peeg ak seeni laaf suñu borom laaj leen te moo leen gën a xam li mu leen laaj laaj leen ni leen wax am na ngeen fekk sama jaam yooyee ñu ko dañu leen fekk di ñu di la sabaal di la zikkar di la fàttaliku di la tudd mu ne ndax dañu maa gis ñu ne ko de mu ne bu ñu la gisoon dañuy def ñu ne la gisoon de lu ñu defoon danañ ko yokk mu ne ana lu ñuy ñaan ñu ne ko aljanna mu ne ana lu ñu musloo ñu ne ko ci safara mu ne maa ngi leen di seereel ne may naa leen li ñu ñaan li ñu muslu musal naa leen ci bu boobaa danañ ko wax ne ko diw kat dafaa jaar dong mu di dem waaye dëkk bokku ci mbooloo ma mun leen ulaayika al xawmu laa yasxaa jalisuhum kon jotaay yu mel nii mat nañu fonk loolu di ko fekke mu mel ni kon tey jii dañoo tànnoon bëggoon waxtaan ci temu Sëriñ Tuubaa ak tawxiid wala boog euh, dégginu Sëriñ Tuubaa ci tawhiid ak solo si mu ko jox kon waxtaan dañ koy tënk rek ci ñetti tomb ab muxaddama lay doon mooy laltaay ak ñaari tomb mooy yoo xamante ni ci ni Sëriñ Tuubaa waxe ci wàllu tawhiid ñaari tomb yooyu daal koy tëj incha allah ma tàmbalee ko ci bayri Sëriñ wax ngir askin haqaaidiya fi tawhiidi wal tuxi bi tariqatal wahidi sëñ bi day ñaan ne na nga dëkkal samay fas ci tawxiid te dundale ci man yoonu yonent bi sallallahu alayhi may wax nag ni dooley julit may wax nag ni dooley julit jullit seen doole ci seen pas-pas nekk li fekk ñu ngi am pas-pas lu ñu song dinañ ko daan waaye saa bu ñu demee ba mel ni ay xott nag lu jël lu leen laal rek ñu daan mu mel nag suñu borom ni mu tëralee àdduna mu mel ni suñu borom dafa tëralee àdduna noonu ci concurrence la ko tëral ku ne rek la la arrangé mën naa am arrangé wul moroom morom loolu moo waral yonente bi mu wootee am ñu ñu ñu noonu woote bi lool ñu ko noonu lool ngir jàpp rek def leen di yàqal noonu yooyu nag dañuy def saa bu ñu jàmmaarloo jullit rek jullit yi gañe leen ñu mujj nag di sàkk pexe di sàkk pexe ba gis ni lay seen doole mooy seen fasus bii ñu ni kon nañ taxaw ci yàq seen pas-pas boobu bañ doon ay xott am na benn kilifa ci kilifa yi colonialiste yi ku ñëw ci barab dajale ñu ñuy al mubashiroon te mooy ñi ñu nga xam ñooy woote ci dinañ seen dina jooju dinañ ñu ñi doon woote bu leen dajale ñuy jàmbat kenn ku ne ci ñoom daal ba ngay jàmbatee bàyyi da nga wax ne daal li ñu jaaxal mooy li ñuy sonn lépp taxul rek ñu mën a am sax 1 pour cent ci jullit yi léegi nag loolu jaaxal na leen loolu bañ jàmmatee bàyyi mun leen leneen taxoon jóg bu leen yaakaar dañ ko amut na ngeen xam li ngeen dugg am ngeen ko lañ bëggoon ci yéen tekkiwutoon wutoon ne da ngeen jël jullit yi dugal leen ci ak chrétien waaye dañoo bëggoon ngeen yàqal leen seen passeport bi duñu duñu fas dara bañ mel ne ay xott te loolu def ngeen ko mu mel ni kon dafa am xalaat boo xamante ni dafa tasaaro loolu ci Occident yi muy jàpp ni islam dansé la ci ñoom loolu nag biñ ko gëmee nag gëmloo ko gone yi dañ ko jàngale ci école yi fu ñu wax ko fa di ko bind ci journaux yi tax nañu bari di ci sàkk pexe ci lool sàkk pexe ci diini islam bëgg koo faagale li xewoon bëgg dem ci New Zealand muy nit ku fekk ay jullit ñu nekk ci biir jàkk rek mu raya raya raya ba sonn rek loolu jëkkewut démb tey yaakaar du mujj foofu parce que loolu dañu ko gëm ñoo gëm ni islam danse la ci ñoom ñuy taxaw nag ci nu ko yàqee léegi ndax am na ci ay jamono ci Québec ci Canada xale bu amul ñaar fukki at dugg ci jàkka defal ma juróom benn jullit ab xalaat la boo xamante ne di wax ci ñoom loolu nag kon ma ni kon jullit bi bu fekkee amul dara lu pas-pas bu ko ñàkkee lu muy amati rawatina africain yi africain bi moom bu sukkandiku ci yàlla day perte day perte bu wóorul ci yàlla bu wóor day perte bu ñàkkee pas-pas day perte am benn tubaab bu nekk ca France di xool nit ku ñuul ba ñu ko tëf bal mu dee ba ñëwee ba ko xoolee ba jàpp ko dafa li ma gën ñoo daal mooy rey rey nit ku ñëw rek su ma ko defee nag léegi lu ñu ma def baax na rey nit ku ñëw def naa ko lu ñu ma def baax na léegi waaye loolu lépp nag day tekki rek ni day mel ni ku tawat tawati dënn xaat ne ko ni tëf rek loolu rek waaye la ca la ca suuf sax ëpp loolu bu maa ak alxaan wax alxaan day wax ni nga xamante nag moom la ñuy nëbb ca suuf moo ëpp fuuf li ñu feeñal mel ni kon gën a jëmbat garabu tawhid ci xol yi di ko suuxat ak ndoxum jaamu yàlla gu sel loolu moo yi may kàttan day def day nekk pas-pas moom jëfe xol la te xol mooy kilifa cër yi moo tax jamono bu ne sa xol boobu di ci taxaw di ko sànni baax na ci fexe bu muy di ko suuxat ak tawxiid ak jëf ju jëf ju jëf ju baax ju sax sax mooy suuxatu xol jullit bu ne nekk war na fa war naa fexe ba li muy wax ay jëfam dëggal ko bu fekkee bëgg naa dajeeg boroom ëllëg gis boppam ca listu jullit yi day fexe ba ay waxam mu ni koy dëggalee ay jëf ngëm nag doonut lu ñuy fàggu ndax suñu boroom li wax yonte bi ci boppam mooy wax mooy ne ko ma kunta tadri mal kitaab wala al iman xamoo sax lan mooy man maa ko def doon ak leer boo xam ne doo ko taabal ci xolu ku ma ci xolu ku ma dama ci leer xoli ku ma neex ci samay samay samay samay jaam kon loolu danañ ci gëstoo kon ni yonente yi seen rôle kon du jàngale ngëm waaye dañuy jàngale nu ñuy jariñoo ci a ngëm loolu moo doon liggéey yonente yi mooy liggéey borom xam yi ñëwaat di leeral seen mbir jëmmi yonente bi ci boppam lool ci loolu nekkoon loolu la doon woote moo tax benn bis wax na ne bu leen ma jay ni nasraan yi jayee Isa bi Maryam ndax man kat jaamu yàlla laa di ndaw bi la ko yónni am na benn xadis boo xam yonte bi dafa wax ne ëllëg de dinañ jiital mbooloo mu néew ci sama xeet jëme leen safara man yàlla ñii de sama sama sama mbooloo la mooy ma xanaa da nga xam dañu sosoon sa gannaaw dañu doon bokkaale sa gannaaw te boobaa du ma am lenn lu ma wax lu weesu la Isa waxoon rek ni ko nag diir laa fay nekk daal wa kuntu alayhim shahidan maa dum fihim li fi ma fay nekk naa leen maa lijjanti falamma tawaffaytanii kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid waaye li jël ci loxo ci sa loxo nag yaa koy lijjanti ni Sëriñ Tuubaa yi dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñëwoon ngir jottali bi woote boobu mu doon woote tudde boppam Abdullahi wa xadimu rasulihi waaye li gënoon a kawe ci ay itam sax mooy nekk Abdullahi wa xadimu rasulihi li gënoon a kawe ci ay itam moom Sëriñ Tuubaa mooy nekk Abdullahi wa xadimu rasul daf koy ñaan yàlla ana bay wax dafa wax ne waj'al shawaghiliya kawni abda laka bi xidmati rasuli jidda na nga def sama soxla yëpp mu nekk mën doon sab jaam di liggéeyal yonte bi di laa ni waxtu bihi kawni abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi na nga bindal ma nekk doon jaam bi yàlla di kuy liggéeyal yonte bi di laa ni sama daraja sama darajati kawni abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi mu mel ni kon tawhid bépp rek ba tawhid jeex rek dafa tënku ci biir ñaari baat yooyu muy baatu Abdullahi wa Xaadimu Rasuul ndax baatu Abdullahi dafa ñëw rek ngir jëmmal baatu laa ilaha illallah ay wax la la koy firndeel ci jëf mooy nga nekk Abdullah Muhammadu Rasulullah ay wax la la koy firndeel ci jëf mooy nga ñëw nekk Xaadimu Rasulillah kon laa ilaha illallah ay wax la la koy jëmmal lay jëf ja mooy Muhammad Abdul Hibu Hubudiyya Muhammadu Rasulullah ay wax la waaye la koy jëmmal moom mooy. mooy mën mooy mooy xidma kon sëriñ bi fi yonent yëpp jaaroon fa la jaar muy woo mbooloo mi ci tawhid moo tax muy leeral xeeti xam-xam yi dafa wax ni wa afdalul ulum bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaq xam-xam bi gën ci xam-xam daal mooy wéetal suñu borom ci ñëpp dëpp nañ ci mu dem sax bay sant yàlla ci tawhid bi mu ko may di wax ne subhanahu wa jaada bi tawxidi wa axawayhi sunnati lwahidi maa ngi koy sant ndax may na ma tawxid may ma fiq ak tasawuf te loolu mooy sunnatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nag boroom xel yi la doon waxal ni alxuraan di wax boroom xel mas mës bëgg mukk ay dongaam doon ay dof mës ko bëgg ci ndax moom ñawuk xel gi mu daan dund dafa wax ne daka u xaq saara misla lwahid sama ñëw xel mujj na mel ni ak wax yi nag bépp murit bu dëggal fekk murit dana la ko rafaatale ndax dafa wax ni zaka wa xaqlil mustafa anaara xalba muridillahi fastanaara ñëw xelum yant bi day leer la xelum képp ku yàlla ba mu leer mu mel ni kon thème bii ñu tànn tey muy tawxiid ak ni ko Sëriñ Tuubaa jàngalee waxtu wi ñu ko indi dañ ko fay itteewoo lool ndax ñu bari ci nit ñi dañoo delluwaat jaamu xelam xërëm nag buñ ko waxee waxuma ay doju ñu ñett ay laataaki Uzza waaye xërëm yi jamono bi ñu toll nii mooy alal ak pouvoir ak aada ñett yi ay xërëm la yoo xamante ni dafa saalu rek dañ kapp ci àdduna bi ñu ko jàmm mu mel ni lépp lu nit bëgg nag mu ngi ci biir tawhid ci suñu biir biir tawhid la ko suñu doon def muy ak liberté mi ngi ci biir alal bu ko nit bëggee mi ngi ci biir tawhid boobu daraja it noonu ndax liberté gi ma wax ni moo nekk ci biir tawhid mooy di suñu borom wax ci alxuraan ni dafa wax ni ndax kenn ci yéen ku am benn kilifa mu di ko digal muy def mu koy tere muy bàyyi kooku moo noppalu wala ki nga xam ne dafa am téeméeri kilifa yoo xamante ni mutashaakishoona bi ñu ko waxee mooy ñoo xamante ni dañoo naqar deret te ju di juyoo ba noppi kenn neexu ci deret te ku ne ñoom ñoo bokk ab cër ci yow ku ne ni la defal lii kii ne defal laa mun léegi kooku moo nopp loolu ki nga xam ne dafa am genn kilifa rek ñu ne kii am genn kilifa mu ni ko nag daraballahu mooy nit ki dem di jaamu jàll képp nag noonu la demee ak nga xamante ne ay bëgg a mooy ki nga xam ne dafa am genn kilifa mu koy digal muy def bokkut mukk ak nga xamante ne dafa am téeméeri kilifa yoo xamante ni ñoo bokk moo ci moom benn sañ-sañ te ku di ko defee lii kenn ko defee kenn ku ne di ko defee lu bokk lii lay natt leen mu mel ni alal it yonent bi li waxoon mooy mal faqra axsha aleykum tiituma ci ak ñàkk walakin axsha an tubsata aleykum addunya kama busitat ala alladina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa tuhlikakum kama ahlakatuhum yonent bi li waxoon mooy tiituma ci yéen ak ñàkk bu fekkee jaar ngi yoon yi ma leen jaarloo ak ñàkk tiituma ko ci yéen li ma tiitee mooy adduna sotti ko ci seen kaw ba ngeen dem di ko xëccoo na ko ñi leen jiitu xëccoo woon te boobaa dañ ne alag na mu alagoon ñun euh, kon loolu mooy loolu lay tiit waaye tiitul ci ñun ak ñàkk bu fekkee jaar nañ ci yoon bi mu bëgg am na benn borom xam bu ñuy wax seex Cheikh Madain dafa wax ne asbaabu risqi sittatun muhaqqaqa tuqan tawakkulun salaatun sadaqa kadaka listigfaaru wattaharruku wal kullu fi lquran jaamu dëkk wax léegi yii sabab wërsëg juróom benn mbir la yoo xamante ne lu ci sax na ci alxuraan taqwa day sa day waral sa wërsëg loolu moo wax ci yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib boobu leen tawakkul boo wakkilloo ci yàlla suñu borom ni wa man yatawakkal ala llaahi julli boo ko fonkee fonkuloo ko sa ñëw bokk na li mooy waamur ahlaka bis salaati wastabir alayha laa nasaluka rizqan nahnu narzuquka sadaqa salxe day sa day sa bokk na li sa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raasixiin kadaalika al-istigfaar bari loo jéggalu yàlla bokk na ci sa wërsëg fa qultu istagfiru rabbakum innahu kaana gaffaaran yursili samaa aleykum midraaran wa yumdidukum bi amwaalin wa baniin wa taharruk ak yëngutu nag alxuraan moo wax ci moo wax ci yàlla moo wax ci alxuraan ni famshuu fi manaakibihaa wa kuluu min rizqihi mun nag waaye suñu umpale nag moo tax mujj bi képp lañu jàpp ni moo la may may wërsëg gisoon waaye juróom benn sabab wërsëgam noonu te lépp sax ci alxuraan bu dee personnalité muy alal muy daraja suñu borom lu mu ci wax mooy walillahi al izzatu wali rasulihi walil muminin kon ñett yëpp yi nit di bëgg du ci ëpp ñu ci biir tawxid la ñu wax nag bu ñu ko waxee ci làkku arab fihaali waxaada ci la bàyyi ko yuwaxidu tawxidan boo koy defal isbifa defal foofu mu waxid mooy bu fekkee da fab ak kennal yàlla rek moom la ñuy tudde mu waxee kennal kennal yàlla wéetal ko ci lépp lu war a bokk ak moom mbaa nga di ko niru ci jëmm ak ci ay melo arab nag wax ne waahidun di wax ahad di wax wahidun waaye li mu jub lépp mooy ku wéet rek ku wéet jub ku wéet ba amul morom amul ay nirwaale ci dara waaye tawhid bi ñu ko waxee ci diine li jub mooy wéetal yàlla ci ak yàllaam wéetal ko ci ak rububiyatam wéetal ko ci ay turam ak i meloom yàlla nag moo jëkk a seere ni moom kenn la ndax dafa wax ci alxuraan ni shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bilxisti laa ilaha illa huwa al azizul hakim moo jëkk a seere ni mooy rabb moom yàlla ndax ci njëlbeen suura Faatiha wax ne alhamdulilahi rabbil alamin bu dee tawxiid ci turi yàlla yi ak i meloom it mu wax ci alxuraan yi walillahi al asmaul husna fad'uhu biha kon yàlla moo jëkk a saxal boppam tawxiid loolu koo digga jàmm ñu saxal ko ñu war koo saxal yàlla yit nag ku feeñ lay zaahir la lay sa faqoo yonte bi dane allahuma anta anta zaahiru fa laysa fawqaka sheyun wa anta albaatinu wa laysa dunaka shey yaa yow yaa feeñ ba dara féetewu la kaw waaye yaa nëbb it ba dara suufewu la nëbb ko mu nëbb nag dafa feeñ loolu waaye nag dafa sewaat ci biir ndax dafa wax ci alxuraan ne laa tudrikuhu al absaar yàlla nag gis du ko gis bët du ko gis yàlla nag bind gu mbind mbindee fii di leen wërsëgal moom leen mbir la moo xam nit ki bu juddoo daf ko yeg ci boppam daf ko yeg ci tabia lañ ko yëgee moo tax yëfa yi yoon te doon woo ñuy gàntu sax da leen dani ko wala in saaltahum man xalaqa samawati wal arda la yaquluna allah ñoom ñii di la weddi boo leen laaj ne ku bind asmaan suuf ñu ne yàlla boo leen ko ma bind taw bi ci asmaan suuf ñu ne kon léegi loolu yëg-yëgu doomu aadama la waaye nag yàlla buy jëflante ak nit ñi mbaa muy wax ñoom du wax ak nit rek directement du jëflante ak moom directement fokk buy wax ak moom da koy wax mi mu war a xijaabi maa kaan li basharin an yukallimahu llahu illa waxyan aw min waraa hijaabin aw yursil rasul la wax buy jëflante nit ñi da koy jaar ci sabab mbaa mu jaar ko ci ci jëm loolu nag mooy waral ñaar nit ñi di di jaxase di am te ni ñi li gën jafe ñoom mooy xaajale diggante aw yoon ak fa nga jëm lu ëpp ci nit ñi ñaar rek ku leen di wan yàlla moom la ñuy gis ba dañuy mujj sax moom mi la mooy yàlla rek ndax moom may wane rek la ñuy gis waaye dañuy gis la mu leen di wan loolu da yeen di jafe-jafe yu bari waaye ma ni yonent yëpp dañoo dëppoo ci ba ñuy woote dañuy wax ci alxuraan ni fattaqullaha wa atiun na ngeen ragal yàlla na ngeen ma topp yonent yàlla ci boppam wax xeetu yonent bi ni leen yaa ayyuha alladina amanu atihu llaha wa atiihu rasula wa ulil amri minkum yàlla moo topp moo topp leen yàlla topp leen yonent kilifa yi mu mel ni kon li gën a jafe ci nit nag mooy xaajale ñetti topp nan la ñuy toppee nan la ñuy toppee nan la ñuy kilifa jaxase gépp foofu lay amee ñaar ñàkk xamee googu waaye baro xam ne ñu wax ni yàlla boo ko boy topp mooy wéetal ko ci jàmm topp yonent bi mooy topp sunnaam kilifa yi it mooy nga di leen topp ci lu lu lu ñu la digal te juyewu te ndigal yàlla lu nga topp leen ci loolu mooy topp kilifa yi waaye nag dafa am ñetti damir yoo xam ne xaajale gi ba tey day jafe lool ci nit ñi mooy su borom dafa ci alxuraan li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mooy ngeen gëm yàlla di ko dimbale te di ko weg te di ko sabal ñetti damir waaye nag fokk ñu xàmmee ni tanzir te mooy dimbale ak tawxiir te mooy wegeel gi yonente de ko moom waaye tasbih bukratan wa asila moom yàlla képp ko moom loolu ñàkk a xàmmee googu nag ñaare mën naa andi loolu ñu tuddee bokkaale waaye bëgg xàjjale nit ñi xam fi ñu jëm nag moo tax yàlla yónni yonent yëpp pour ñu leeral nit ñi xàjjale yooyu ak ràññatle ko moo tax mu wàccee téere bu moo sa wàccee tax mu wàccee ki jëkk a sonn ci fànn googu nag mooy yonent yàlla Nuux alayhi salaam mooy yonent bi yàlla jëkk yónni ngir muy lijjanti jaxase bu ñu daan jaxase diggante fi ñu jëm ak yoon wi ñuy jaar ak fañ jëm jaxase gi ñu ko daan yàlla jëkk yónni muy sonn lool ci defar gi waaye fekk ñu jëfandu ñu jàpp lool ci seen caaxaan yi jàpp gu dëgër goo xamante ni daal daa bi ndax dafa jaxase ñoom loolu tax alxuraan di wax ni ba mu ñëwee dina dañ ne dañ ne yee eh, na tadrunna alihatakum bu leen bàyyi seen yàlla yi de wala tadrunna wuddan bu leen bàyyi budd mu ko wudd bu leen bàyyi suwaa bu leen bàyyi yaxuus bu leen bàyyi yaxuus wa nas ci Sahih Bukhari yi dafa wax ni tur ñoo ñooñu mu tudd noonu juróomi nit ñu baax lañu woon ba ñu faatu nag ñoom nit ñoo ñooñu seytaane ci boppam moo tàbbal ci xoli nit ña ni leen dafa dafa ñëw ci nit ña ni leen da ngeen di fab seen i e, photo samp ko ci béréb yi ñuy jaamu di leen xool ndax mu gën leen sawarloo ci ak jaamu yàlla ñu ko defee jaamuñ ko ci saasi waaye dañu fa def ab diir rek ba ñu faatoo ñeneen ñëw ña ñëw nag jaxase jàpp ñi di leen daan jaam rek ñu tàmm di leen jaam kon jaamu kanam loolu foofu loolu képp ku ci kaw suuf muy jaawal rek ibnu jarir wax ni nit ñu baax ñoom diggante aadama ak noohin dañoo amoon nit ñu leen toppoon di leen roy ba ñu faatoo ñoom seen ña leen toppoon dañoo wax ne waaw bu ñu leen foto woon de dana tax ñu gën a sawaroo ci ak jaamu yàlla ñu foto leen teg leen fa ba ñu faatoo ñeneen ñëw seytaan ñëw ci boppam dugal dugal ci xel nit ñi ni leen ñii kat bi ñu leen teg bi ñu leen teg estat yi dañu leen tegoon ngir di leen jaamu ndax bu ñu mësaan am taw ñu leen ñu leen di tawal ci lañ leen di wërsëgal léegi ñu daal leen jaamu ngir ngir umpale ko kon léegi benn ngoogu ci loo xamante ni day euh, jaxase ngir yàlla lu dul wax ak nit ki direct fokk mu jaarale ko ci nit boo yeexee nag kam ko jaar da nga ko jaxase da nga ko jaawale ko waaye sabab it ab xelal bu ñu jàmm sabab ndax yàlla du jox kenn directement dara dara lu lu bëgg jox fokk mu jaarale ko ci nga sabab lu ci message boo ñëwee ci tool bi nga jël soo jiw engrais ko bay rocher ci war lépp nga def ndax yaa ko sax loolu war déet loolu sabab la xam waaye sabab bi dafa am fu mu yem yàlla moo wax ci alxuraan inna allaha faalikul habdi wa nawa yàlla kat mooy fekk pepp xa ma ca suuf mu xar ko mooy fekk saal bi nga jëwoon mu xar ko génne ci jabatul tooy mu bët suuf si génn loolu mbirum yàlla ku xam ne yow loo mën a def loolu mu soo nekk moo tax suñu borom wax ci alxuraan ni inna allaha faaliqul habdi wa nawa yuxrijul hayya min al mayiti wa muxrijul mayiti min al hayyi daal di wax ni nag daalikumullah pour ni nga xaajale xam ni saw képp nga man waaye la koy génnee ci suuf sa ba mu ba mu bëtt suuf si ba génn moom kooku da nga xam soo néew nga xaajal yooyu nag loolu mooy xam sabab xamee yit fa sabab mën a yem nga yem bu loolu leeree nag kon li nu taxoon jóg dëgg-dëgg loolu ab muxaddima waaye li nu taxoon jóg dëgg-dëgg mooy leeral sëñ Tubaa am njàngaleem ci wàllu tawhid man waaye sëñ Tubaa ni mu jàngalee tawhid mooy ni ko alxuraan jàngalee yonent bi jàngalee ko ndax boo demee ci alxuraan da nga fekk ay alxuraan bu wax ni wa ma arsalna min qablika min rasul illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun mosuma yónni benn ndaw mu jëkkale ta du dama ko wax ni ko man mii képp maay buur neen ma jaam mel ni aaya boobu képp suñu borom saxal na ci ñaari mi saxal na ci ne tawxid ñaari xaaj saxal na ci tawxid boo xamante ni lu ñuy wax la ci mi di ko fas mu saxal ci tawxid boo xam ne ñu ko war a jëf muy faabudun ji wax la ilaha illa ana lu ñuy wax waaye nag faabudun moom lu ñuy jëf kon loolu day leer ba moom la Sëriñ Tuubaa junj ci njëlbeenu nahju ni wa baadu fa tawxiidu lil xismayn munqasimun fa saara tawxiidayn fa awalun takallumun wa saani taarufun laa tunkiran bayaani mu mel ni kon sëriñ daaj bi la wax ne tawxiid ñaari xaaj la bii dañ koy wax bii dañ koy jëf bu jëkk bi moom la ñuy tuddee at tawxidul ilmiyul xabar yi mooy tawxid boo xam ne koy xam wax ko ci su lam te mooy saxalal yàlla mbooleem melo yi mat yi solil ko mbooleem lu koy niru ci melo yi luy niru ak ak mànkit waaye tawxidu ñaareel mooy tawxid boo xamante ni yi ngay jublu yàlla di sàkku ci yàlla te mooy jaamu ko bañ ko booleeg dara kon bee bu ñuy wax ne ci làmmiñ bii bu ñuy jëf mooy fattaqullaha wa atiwan mooy la wax ne ubudullaha Ah, maa lakum min ilaahin xayruhu jooju alxuraan wax rek amu leen benn buur bu yàlla rek bu ne maa lakum min ilaahin xayruhu muy tekki tawxiidu muy tekki tawxiidu takallum bon bu dul laax ji mooy tekki tawxiidu taaruf mooy tawxiid boo xam ne mu mel ni bi tawxiid bi mooy lii sëriñ bi saxal ci tasawudu sixaar ak tasawudu subaan ak ci mawaahibul xuddus di ko wooyee tawxiidul achaira muy tawxiid bi nga xamante ne moom dañuy askan li abul hasan al ashariyu mu bokk ci kenn ci njiiti ngéeri tawxiid yi ndax ñetti ngéer moo am yu fes ci tawxiid muy abu ngërum abul hasan al ashari ak ngërum ku ñuy wax abu mansour al maturidi ak ngërum asalafiya te muy ngerum imam ahmad ibn hanbal ngéeri tawxiid yooyu nag moo ngéeri fiq yi ñooyam ay wote yu néew la ak turux sofi yi waaye dégg dong la waaye nag da ci am solo lépp ñoo koy dëppale la ci dañ ci wóote ñaar lu néew la tam ci biir lu néew moom lañ ciy wóote waaye li jëpp solo ñoo koy dëppoo ñaar muy rek saxal e, melo yi melo yi mat yëpp saxal ko yàlla dàqal ko mboole melo yi manquité te suñu borom ci alxuraan dafa melal bopp melo yu bari waaye nag melo yooyu yëpp nag dañuy bari bari nag boo day tënku ci biir ñaar fukki melo yi ñuy lim ñoom ñaar fukki melo yi ñaar fukki melo sax na ci alxuraan sax ci ay la yu leer waaye ñaar fukki melo yooyu moom la ñuy sédduwaat ñeenti xaaj di ko asifatu nafsiya asifatu salbiya sifatul maani ak almahnawiya ñaar fukki melo la moom la sëriñ tu sëriñ bi jàngale ci saxaar ñu xaaj ko ñeenti xaaj dañuy gis ci biir xes dé mi wax ni allahuma inni muqirun laka fi adama baadawa bil uluhiyati wa bil wahdaniyati wa bin nafsiyati wa bi baqiyati salbiyati والمعاني والمهنية وبالربوبية والأسماء والحسنى kon léegi ñaar fukki melo la yoo xam ne jàngale moom la jàngale ci saxaar fu mu toll yi da koy tudd lu bare bare al wujud bi al wujud bi ñu ko waxee al wujud mooy asifa nafsiya bu ñu nee asifa nafsiya mooy baatu al wujud rek mu beru asifaatu salbiya juróom lañ mooy al qidamu wal baqaaw wal muxaalaf wal xiyaam bi nafsi wal wahdani juróom yi lañ tuddee sifaatu salbiya sifaatul maani moom la mooy al xudra wal irada wal xel wal xeyaatu sama wal kalaam basar juróom-benn yi ci xare juróom-ñaar yi ci xare waat mooy lu ñu tuddee almahaniyaat bu ko defee ñaari juróom-ñaar yi muy juróom-ñett muy juróom muy fukk ak ñeent nga doon ci juróom-benn yee muy ñaar fukki melo ñaar fukki melo yoo xam ne ñu ko a saxalal yàlla sellal ko ci lépp lu ko luy nuru ak manquité te sëñ bari loolu lu mu koy bamtu ci biir xasida yi ndax am na génn xasida gum xam gum tënk mais lafi mafuus wujo al wujud mu ngay tàmbali ci min nii min nii li man la wujud wal xidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al xidam nafaa zul baqaay wal muxaalafa al abdat al xadima la muxaalafa léegi kon ñaar fi ma lee la tënk ci biir woowu muy xasida goo xamante ni sëñ Mahmoud Lamine daf ko nekk ci iraan di wax ci xasida bu yéeme ndax dafa wax ni benn bis damaa nekk ci biir béréb bi ñu doon bindee di xalaat lan lañu war a tontu ñaari malaayka yi ba agsi sax def ci aw bayit wax la ko def sama xel waaye génne ma mooy damaa wax ci sama xel ne layta mada ma daa yakunu in ataani fii turbatil malakaani aka ne ma xam lan laay tontu ba ma ba ñaari malaaka yi ñëw fekk ma ci sama biir bàmmeel nee na ci biir loolu bi ma xalaatee am ku daw ci biir taw bi ñëw taxaw ci bunt bi ne sëñ bi dafa soxla kenn ci mi ngi taw am ku jóg ka jege woon ci wetu dem dem wujji sëñ bi jox xasida gi ko xasida gi mooy tontu ñaari malaaka yi ci bàmmeel kon xasida gi mooy tawxeet rek sëñ bi jubloo jàng ne mooy ñaari tontu ñaari malaaka yi ci bàmmeel waaye may wax nag ni ñoom jubluwuñu rek saxala saxal la la ñaar fukki million yooyu ne la législative dañu ko dàq déedéet léegi ñoom di naan saxal mboolem melo yi yàlla saxal ci alxuraan yàlla saxal na ci kanam saxal ci ñaari loxo yëpp dañu ko jële ci imam abul hasan al ashari ak ña ànd la moom ku mel ne alxaadi abou bakar ibnu tayib al baqlani ak ibnu fawrik ak meneen mbooloo mu du ñoom ñu gën a saxal nag di wax juróom ñaar melo yi képp yem si nag mooy ku mel Eh, kuréelu ku ñuy wax abul maali al juwayni ak ñay dox ci am ngërëm waaye sëriñ Tuubaa moom boo jàngee da nga gis lépp dafa wax ne allahuma inni muqirun laka bil kamaali wal jalaali wal jamaali wa taqaddus an kulli ma laa yaliqu maa ngi saxalal ak mat saxalal jalaal saxalal jamaal saxalal lay sell ci lépp lu yellu ci yow ci ay melo kon waxin la woo xamante ni daf ko bëbëstal waaye bu ñu koy taqantal ci biir xasida yi xasida gu dugal da nga mu takkantal ci yooyu kon loolu mooy tawhidu du bi sëñ bi leeral noonu tawhidu taaruf nag moom la jàngale ci téere bi ñuy wax masalikul jinaan te mooy tawhid bi nga xam ne dañ koy dund ba yëg ko muy tawhid boo xam ne xaas la du du pour ñëpp daal waaye dafa mel ni euh, ñëpp ñëpp ko moom waaye ñëpp ñëpp mënuñu ko laajub dox rek tax te soofu moo tax mu ni euh, mu ni bee jullit yëpp ko moom bii nag dafa am ñoo xamante ñoo ko jëloo ci jullit yi bi lool te mooy wéetal yàlla ci ak jaamu booy sàkku looy def nga nga nga tàmbalee ko ci sàkku xam-xam def ko ngir jëm yàlla masaal bi dinaa nag ab tëdd loo xam mi ngi ko tënk ci ab muxaddima ak ñetti bunt muxaddima def def na juróom-ñeenti faslu bu njëkk bi mu soññee ci nit ki dafa war a jëkkante ak waxtu yi wa arxabu l asyaai lil amwaati raddun ila dunia ma alxayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfa'uhum in xafalu fasub ñaareel bi mu soññee ci ni ñuy dundale waxtu yi ci ay nawaafil ak sikkar ñetteel fasub ci mu tudd ci koor ak ngëneelam ñeenteel mu tudd ci werd ak i njariñam juróomeel mu tudd ci zikkar ak i njariñam juróom benn mu tudd ci xalaat ak i jeex itam juróom ñaareel mu tudd ci sarxe juróom-ñetteel mu tudd ci jàng alquran juróom-ñeenteel mu tudd ci tasawuf ak juyoo ya ci am kon loolu mooy mu muqaddima bi def ci mu ci masal ci masal ji nga xam muqaddima bi képp daanaka xaw na doy ab téere ñëw na buntu bi njëkk bi buntu bi njëkk bi mu bind ni bunt la boo xam ci mbindeef yi mbindeef yi ci lay wax mu def ko ñetti faslu faslu bu njëkk bi ci la tudd ad dunya faslu bu ñaari mu tudd ci nit ñi nit ñi day bëgg booy jëfante ñoom nga bañ leen yaakaar bañ leen ragal bul yaakaar nit bu ragal nit lépp ci façon sellalu jaam yàlla bokk waaye bu ñetteel bi mu tudd ci jëf nit ki bu sukkandikoo jëfam dëgg-dëgg jëf jooju maanaam mu doon ab xëram bu muy jaamu jàpp ni lu mu am moo ko may fekk loolu lépp ay natt la bu nu ñaareel bi sëñ bi tudd ci ay yàqu-yàqu yi am ci ay jikko wax ñetti faslu moom itam faslu bu njëkk bi mu wax ci yàqu yà maanaam bàkkaar yu bon yi nga xam dafa nëbb yu feeñ diggante jëw ak rambaaj ak fen ak sàcc ak naan sàngara ak reyinte yu benn façon ñaareel mu tudd ci bon bon yi nga xam ne dafa nëbbu te mooy rëy ak iñaan ak njëstal ak yéem sa bopp ak yu dem bu ñetteel bi mu taxante ci diggante ay bàkkaar ak ay saafara ay jikko yu bon ak la koy saafara moom la tudd ci façon ñetteel buntu ñetteel ci façon ñetteel bu ñetteel bi sëñ bi jàngale si ay teggeen ak i ngëneel teggin yooyu mu xaaj la ko ñaari mu sedd la ko ñaari xaaj ni am na teggin yoo xamante ne si digganteeg sa borom la am ci teggin yoo xam ne si digganteeg say morom lay doon waaye bunt bu jëkk bi mu tudd ci sàmmonte ci faslu bu njëkk bi mu tudd ci sàmmonte ak waxtu tudd ci muñ ak ñaan ak teggini ñaan ak waxtu yi ñu wuyu ñaan ak béréb bi ñu wuyoo ñaan ak kan la ñuy wuyu ak ñaanam ak cant men tawhid ñaari tawhid yooyu boo ko boolee la muy jeexital mooy euh, li ñuy wax maarif te mooy am yëg-yëgu xol ci li ñu la doon jàngal ci tawhid moo tax sëñ bi wax ni fa samaru tahlili tawxidun sama lil aarifina qaalahu man alima laa ilaha illallah boo ko barilee tawxid ba mu leen indil mooy tawxidu aarifan billahi daa ci teg li ana tawxidu tawit takallumi hawaahu kullu muminin wa muslim tawxiidu mutakalliman yi moom nee na bu jullit bi ne mën na jullit bi ne mën na wax tawxiid waaye jëf gi nag moo jafe solo si mu am nag sëñ bi jox tawxiid ci biir mbindam nag boo xoolee ay mbindam donte benn si gon la sax da nga ci gis ni ko itteele moom sëñ ni ko tawxiid itteele ci mbindi tawxiid boobu ndax moo tax yàlla yoon yonente tawxiid taxe ak taxeet lépp ci tawxiid nag nit bu xasee am tawhid mën naa def njaaxum yéen yàlla jégal ko bu xasee nekk tawhid lu ma def du jàll moo tax mu wax te ba muy wax ni xam-xam bi gën ci xam-xam mooy xam-xamu tawhid ñëpp dëppoo nañ ci mu saxalal yàlla allahu baaqin qadimun laa yushaabihu ma bil baali yaxturu wa huwa al mufrad mufrad alamu saxal na yàlla ni baaqin la xadimu la nuru dara mu saxal yàlla coobareem wax ni wa huwa alxakimu alladi ma shaa kaana wa ma lam yaku shaa'iyahu fa dareen hadiku saxal kenu yàlla ni fa man lahu jalla yan mii sarmadan waladan musal santi xaasari lahu alxadamu delluwaati njariñ ak lorit mu xam ne yàlla képp ko am addur wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudani njariñ ak lor moom yàlla képp la jóg waaye jóge ci nit ku weex jóge ci nit ku ñuul addur wa nafu min aljabbaari laysa min alfujjaari wal abraari addul wa nafa min alwahaabi laysa min al aadaai wal ahbaabi noonu la tënkee dem ba tawxid di wax ak géej gi ci Mayomba muy jamaat di ko wax ak moom ci tawxid di ko seerloo ni man mii di jaamam di liggéeyal aji liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam li yashhad bi kaw nii abda man yaxfiru damba kaw wa kawni xadimal Mustafa bahrama yomba dem ñu ko aya bahru waxit yow géej gi réew na nga wéetal yàlla laa salis bi bokk mukk ñu ko xamante ni ko yàlla ñett la ñeent na fa rabbuna taala an tarsi ak bi rabba wa kon loolu mooy tawhid bi sëriñ bi jàngale ci wàlluk euh, bu ñu war a jëf ba yëkku may daaneel rek tënk sëñ bi dafa tënkaat tawhid ci ay kàddu yu néew ci jamono yi yi muy tomb tomb yi dafa wax ni maanaam tawhid ci gàttal mooy bépp manka nga dindi ko ci nga dàqal ko yàlla ci xol yi waxut ni nga dàqal ko jëm yàlla ndax yàlla mu ne ak manqué mosu ko jëm du jëm ci moom te du jëm mukk ci àddina waaye da koy dàq ci xol bi ko doon nattalee jàpp ni ak yàlla war naa mën a manqué saxalal ko gépp mat gu yàlla ci moom nga saxal ko ci loolu mooy dëgg di ki mu muy mu leeral it ba xam laa ilaha illa wax ni laa ilaha lu muy tekki mooy nga xam yàlla dafa def liimaan ak lisaan ak lisaan ak waajib ak mëntub ak baax da koo def mu yooyu yoonu ja aljanna defit ak kéefar ak shirk ak fusuq ak lu araam ak lu ñu sib ak lu amul njariñ def ko mu yoon safara mun nag yëpp yoon woo ci soobu ñaari yoon yooyu kenn mun laa tee àgg te bu àggee boo eggee da nga xam ne da nga xam maanaam laa ilaha illa lan lay tekki sëñ bi delluwaat ni ki moom lépp nag du nangu ko boole kenn wax ne yàlla bu ki moom lépp boo ko séddini bi lii mooy sib cër day dànk du ko nangu daal ni kon yàlla moom xol yi moom làmmiñ moom cër yi moom pas-pas yi moom wax yi moom jëf yi yàlla moom wax yi moom loolu lépp nag boo ko bëggee sédd lenn bàyyil jës du ko nangu daal ni laa ilaha illa huwa la sharika lahu mun nag na nga sax dàkk boo ko mënul nag na nga taxoo tuub ak yéene ji rafet kon loolu mooy dañ jubloo na andi ci tawhid sëriñ bi di sant baax Eh, mbooleem murid yi kuréeli xasida yi ñu ngi sant leen gërëm ñaan suñu borom def leen tawféex di eh, sant bu baax ci eh, liggéey bii nga xamante ne ñoom tax nañu ma di ko jéem a di ci liggéey sëñ bi ci wàllu fànn lii ndax liggéey sëñ bi kat li ma sëñ bi waxoon dañu ma sëñ wàkki bésu boo xam ne newoon na liggéey sëñ Tuubaa xamul lu ci nekkul waaye barke moom am na ci mi ngi ci xamul lu ci nekkul waaye barke mi ngi ci kon ku la ci woo rek war sant bu baax da leen sant mag ñi sant ndaw ñi sant góor ñi sant jigéen ñi sant ñëpp di leen sant ñaan suñu borom defoon ak dégg defoon ak dégg ak topp ak jëriñu wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu di jéglu baax nag ñàkk dem baax na asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ñu ngi ziyaarewaat sëriñ bi di ko sant bu baax ci waxtaan wi am na Pastef waxtaan wu am mooy waxtaan woo xam ne bu ko nit ki dégloo bëgg koo jëfee dina ko yëkkati ci pas-pasam lu ma taxoon ñu tànn tawxiid mu nekk waxtaanu sëriñ bi tawxiid ak mooy li nga xam ne benn jullit bu ko am li sëriñ bi wax lépp loo ñàkkati mën na laa bañ a lor yowmal qiyaam jullit bu ko ñàkk lépp loo amati du la jariñ dara fa dem haba am mansura moo tax sunu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa ci alquran ne ko yow mii di ki gën ñépp boo ñëwee fi man indiwaale dara ci shirk lépp loo mas a def dañu koy sippi jëf jooju day yàqu te da ngay perte moo tax Sëriñ Tuubaa wax na ci njàngale yi ne ba tey xam-xamu tawxiid nit ki su ko xamee nam ko war a xamee te fas ko lu mu ñàkk loratu ko su ko amut lu mu am jariñatu ko loolu moo taxoon ñu tànn at tawxid def ko muy waxtaan sunu boroom yebal na dañu wax ne téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junniy ndaw benn baat lañu bokk yonent bi ñun ñëpp benn baat la ñu bokk yoon yenu jaar mën naa waroo waaye liggéey bi nu indi benn la te mooy tawxid rek lañ doon jàngale si loolu tax ñu dellu siwaat ci jamono àgg na foo xam ne ñu bëri ci dongo yi bu ñu déggee tawxiid dañu daal di sii su defee dañ leen a bëgg na wax safaan wala ñoo tax ñu yëkkati ko fekk sëñ tubaa loolu rek a ko sonal nag sëñ tubaa tawxiid bu dëgër képp képp tukki bi mu dem ak lépp bañ bokkaale rek la mbindam sëriñ tubaa mi lépp lépp loolu la liñ ci war a wax sëriñ bi wax na ko yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp moom it yàlla na ko fi sama borom yàggal ak ñu mel ni moom ñu yàgg liggéeyal sëriñ tubaa ngeen yàgg koo liggéeyal yéen itam jërë ngeen jëf sëriñ Fall dafa wax ne waxtu wi dafa xat lool